dem ci ay dëkk da leen di yeewi dañ ñeen di wallu am na dëkk yu leen gëm seen yàlla fal leen te ne yeewi leen ñu moo tax ko juróom benn weer yéen ngi ñu di fekk di fekk si yéen doon wallu na ngeen di wallu waa réew moom yéen ngay bàyyi dëkk ba duñu fekk si di dugg si di dugg si waa présidentielle ñaata meer ñoo jóge wallu ñaata maire ñoo jógee yeewi askan wi ñëw pour le moment di di ñëw ba léegi ñi xëccoo pour ñëw xam nga lu tax non même rek may gën lu tax mun am parce que nit yéen a wone woon réew mépp ni opposition bi ñoo gore ñoo diiñ ñoo am ngor lu ñu wax la ñuy def ne pouvoir lu ñu wax gëmuñu ko baaxuñu ñooy sàcc yi ñoo yées yéen a ko doon woon ñu waxuñu yéen a ko doon wax jàkkaarloo fu ne ngeen ko fa ñu dem élection matagul ñetti weer yéen yéen ngi tourné seen mbubb di ñu fekk ci ñun ñu bon ñi ko yéen kenn ngeen wala ku ngeen di dindi xam nga aussi kaay ñu waxtaan quoi bàyyi leen naxaate yi baaxoon xam nga yii ngeen def ay naxaate la rek xam nga gëmu leen ko su ngeen gëmoon yeew yeeg wallu maire opposition duñ ko fal ba dugul trois mois mu ñu fekk si bu waaj présidentielle na ma di pas que ngeen a jënd da nga ay mili de milliard mhm. bu fekkee opposition Sénégal mën na leen jënd kon bu leen Sénégal yi fan ndax trois weer gën a mën a jëndaat kon ngeen jaay réew mi ëllëg c'est même bu fekkee ne ñun Sénégal mën nañoo jëndee biir kañ tey jënd moom bu ko fal ndax boo ko jëndee subat mu jiite réew mi mu tay réew mhm. donc pour vous dire que politique euh, nangu naa seen coalition parce que nag réew aussi balaa moo neex mhm. am opposition réew balaa moo neex ñu xëccoo ko pencum ndaw réew mooy place opposition mhm. man je rêve comme ni mu mel nii réew moo xam ni day am opposition à l' assemblée nationale am parti au pouvoir am ku nekk débat politique man fa am loolu loolu man d' accord naa ci vraiment te ñi nga ñi ñi nga tudd ci coalition bi xam naa ci nit ñoo xam ne ay Sénégal lañ yu baax lañ ñu vraiment ay nit diiñ lañ Déthié Fall xam naa ko bu baax a baax ñu dëkk Ndar xam naa ko euh, keneen ki dëkk Parcelles Thierno Bocoum xam naa ko bu baax a baax nit ñi bu ñooñ la min naa leen donc ñu baax lañu mais quand même bu mu tax génn baax bu tax ngeen bonal lépp ne Sénégal boo taxee ne Sénégal amul amul social quand ak li président ak li li président Macky Sall def ci bourse bourse yi bu jox kii bu musul am ci réew mi. lu bari am ci non man man yoo xam ne président Macky Sall nekk ba mu des ba mu des quand même du def social bu ñu nangoo nii réew mu néew dool la ñu am jafe-jafe fépp la am. Mm-hmm. am na fu sooxe am na fu baax am na fu dem noonu loolu am na. rôle opposition aussi nag mooy aussi ne lii baaxul lii baaxul ba mais des fois aussi boo ne lii baaxul da nga fay teg leneen waaye ñun baax nañ rek jox leen ñu nguur gi jox leen ñu gouvernement te ma dama la lenn je pense que bëgg ngeen dem assemblée nationale mais ñun les pays africains la cohabitation xaju fi en tout cas gënu fi gënu fi attanuñ ko suñu démocratie eggagul foofu bëgg naa nag opposition bu am doole. bu nekk assemblée nationale. mais quand même ne Sénégalais yi ngeen fal baaxuñu ñun ñoo baax ñun ñoo nangam te bu matagul ñetti weer ngeen commencé war ñooñu leen faloon day xaw a day xaw a doy waar. daal laa ci mënoon wax xaw ma lu ci sa xalaat yow nga baax.